mu ñëwoon sàkku si ndigal ci ci ci bis boobu muy def muy cant bu muy cant ma ci yàlla ca Ndakaar di ko dara si grand bâtiment bi moom la ñëwoon di sàkku si ndigal ci loolu ci cant bi ak di sàkku lu ci yéene rek ñu jàpp bi ak seen tubaab am yéene sëñ Basir Fall alxuraan dañ si rendu hommage ak sëñ Alaaji Baara ñu waaw incha allah kon nee naa leen si ndigal jërëjëf tàllal loxo yi si biir ñaan bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, ñu ngi nuyu mbokk yëpp ci turu jëwriñu ñaan yàlla sunu borom yagal ak dundam lol te wëral ay cëram am li mom ci liggéeyub Seera Faal bi yëpp mu def ci lu kawé ndortam tànn ko taalibe yëpp ah, di jottali na kaddu go xam mi ngi bayiko ci mom jaar ci jëwriñ ji di sëriñ Modou Gise jëm ci mboolem talibé yi yépp ko xam ne sa yaakar gënut maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi de xamal ni ah, jox na ndigal sëriñ Modou Gise ci bis bobu nga xam ñu ngi koy taxaw at mu jot di ko taxaw du si sant maam Cheikh Ibrahima Fall ah ren nag yàlla dogal mu dara jaale ko wala mu si sant du si fàttaliku sunu jàmbaar di du Cheikh moom Lamine Baara waaye sunu jàmbaar di du Serigne Bassirou Fall alxuraan moom Serigne Mbacke Fall maam Cheikh Ibrahima Fall fas yéene fàttaliku ak dundam fas yéene taataan ci ay tawféexam yaatal ko si ñëpp ba ñëpp xam ko ah muy sañ bi nag di wax ni. sëriñ bi jox ko ci ndigal mu taxawu ko mooy sababu sëriñ bi sant nu nu wootee bis bi ci turum woote ko ci turu njabootu Cheikh Rafal gep kep ko xamni ki dal ah, man sag man agna fa sëriñ ba nga sakku nga and ak sëriñ Modou ci bis boobu yi ñu ko ba mu mel ni nga xamne non la bis bu dayo non wara mel ñu ñaan nak ci dole Cheikh ibrahim Fall dañ ciy sàkku suñu borom defal nuko ci moom mi nga xam ne moom la yàlla tawféexal muy taxaw bis boobu mu xam ne moom Cheikh Fall la koy taxawul waaye Sëriñ Tuubaa la koy defal ndax ñooñu képp ku leen di sant ak di leen fàttaliku xamal ne Sëriñ Tuubaa rek nga koy defal ak Cheikh Ibrahima Fall ay jàmbaar lañ ñu liggéeyal yàlla liggéeyal Sëriñ tubaab ba am gërëm kon nag jaar si ñoom man na noo jox lépp loo xam ne ñu ngi koy yittewoo si si si bopp ak sunu njaboot si diggante àdduna ak àllaaxira serigne bangi ngi sant ñëpp rek kep ko xamanteni ki ah sa que am nga manuk tew fa nga tew fa jëmmal bis bi ndax moy jëmmal maam Cheikh Ibrahima Fall moy jëmmal serigne Touba bis bi nag mi ngi am ñaari fan ci wéru décembre muy le 2 décembre ci esplanade parcel Assainies su ko defee murid yépp xam ko xam ni daal bis bobu eh, am serigne Modou am na si ndigal té lam fa wara taxawu loola serigne bi la koy taxawul kon mu ngi ñaan képp koo xam ne kii daal mën nga faa teew nga ànd saak moom ci anam yoo xam ne nii rek mane nga ko ànd saak moom jëmmal bis ba ba mu mel ni nga xam ne noonu la war a mel ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla nañ ci àgg ak jàmm te lépp luñ sa sàkko rek yàlla borom defal ay ngëneel ak tawféex ñoo ñee su nga xam ne suñu kilifa yooyu jiitu yàlla suñu borom dolli yërmande ak leer si ñoom waaye ñi nga xam ne ñoo ne seen ginnaaw di leen taxaw sama borom yàggal leen fi te sàmm leen te ba ñu yàgg a uh, seen bis yooyu ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa